من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا الحمد لله القائل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki talibé yi ahlu xasida ñu ngi leen di nuyu di leen delloo njukkal ci tànn gi sëriñ bi tànn ci biiru njabootam ñu féetewoo mécceem xasida yi ndax bëgg jàng xasida rek taxu ta mën a jàng xasida dafa am kuréel go xamanteni serigne bi moko ñaan boromam pour dënn yu xajo xaside yi ndax laqantani yaa maalikil alfaada wa bi yuraqi hisbakal hufaza gëna bi ko borom bi maye lahul mahfuz muy toxale ci laxul mahfuus di bind di bindee ci xalim ak laxul mahfuus ak ci dictionnaire u laxul mahfuus bi mu bindee ba àgg foofa ba noppi dañu ko nag mbind daa am lu koy taxa sax muy dënn yu ko àttan te man koo wattu ak làmmiñ yu fecceeku mën koo yëkkati ca la daal di ñaan boroomam ni ko nag may ma kuréel guy sonnee mokkal gi ak wattu gi ak yëkkati gi kon wabi yuraqi hisbaka al alxufaaz kon lola ab cër la benen cër bi ci dess muy leer la leer leer gu war di jolli waxtu wu ne leer nak du ñepp ñoko ko ak leer du fepp lay duggu du ko bëgg tamit mu dugg ci yow mu dugg ci yow ndax afa man sara allahu sadrahu lil islam kooko am nañu ko yéene woon bëggoon ko am waaye yonent bi alayhi salatu wasalaam bi mu ko yene baayam ju baax ja yéene woon leer gi rek borom bi amut ci innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha وهو أعلم بالمهتدين كن هداية التوفيق دائم أك هداية الإرسال هدا... ليرك توفيق دائم ليرك توفيق نك دا بقتي خسيدي ليرك توفيق لا ما جام بيدو كماي بحم نك ناجي ربي ناجي ربي الكريم بكتب ليست تريم anwaaruha nag la wax anwaaruha wali yarum ahmadu xayru safadi kon ay leer la ay leer la laysa tarim yu fi dul jug leer yu fi dul jug nag daa am ñu ko ame am ñu ko séddoo am ñu ko féetewoo moo tax leer ga du fi du fi jug ndax niitukaay yi sax dafa am ñu ko jagoo di ca xëy ñu koy tuddee ab barab muy ab société am ñukay jang dije di ci spécialisé wu di dox seeni waxtu ak seeni xalaat di ci am ay daraja ñu leen koy euh kenn ku ne lang ca wawenona ñu lay wowe nona ta kat kayu aduna la rek ki nital aduna ak alakhirah nak kon lutax mom do am ñu mom mom am métieem di ci xey di ci wacc war ca ami tur tamit ñu leen ci tuddu kon ñu ngi ndokkel ñi yàlla def tawféex googu muy seen tawféex muy xasida gën a ñaanaan suñu borom rek mu gën a barkeel seeni yëngu ci doole sëriñ bi waaye sëriñ bi gën ñoo gërëm yaakaar nan ko waaye yàlla nan sax ci ngërëmam di ndokkeel bu baax a baax Seydina Alin ci bis bi mu amal jëmmal ko jëmmalu ci lu dul waa ahlu badrin il kiram ñi nga xamante ni sëriñ bi moo ne woon akramani llahu bi ahli badrin inda taqarrubi bi ahli gadri akramani llahu bi ahli badrin inda taqarrubi bi ahli gadri nga déggaat foofu kon badr feeñ na fa waaye déggaan nga ci muwaahibu fa wattu amri li mubqi umri ويماها أهل بدر بلم ترائيه كن فوفتين بدر فين نفا صلي على ليس صفا بيوم بدر اسوفا فافتا جزب القلوب بدر فين واي يجب دي أي مقامات أكي تخواي يوم أم ديجنتي مك أهل بدر بنن توفيق جي sëriñ bi di leen tuddee ay labraar yenn saa mu tudd ahlu badar jublu ci baatu labraar mu jublu ci ahlu badar kon asiru ma al abraari hiina asiru wa danna al ida anni unaaka asiru al abrar googu mooy ahlu badar maa ngi dox di déparé jeewal di dem jëm ndar waaye ñi àndal ci dox bi mooy mahal abrar mooy waa ahlu badrin kon ahlu badrin ñoom la àndaloon tukki bi te ñun luñ am ci sëriñ bi lum ñuy dikk nee na ci tukki bi la ko la ko jële kon ñun ña ko gunge woon ci tukki bi buñ amee ngor war leen a delloo nju njukkal kon waa Badar la ñuy delloo njukkal kon ñu ngi leen di ndokkeel ci guddi gii di guddi Badar te julli ñépp amee leen njukkal nag julli ñépp amee leen njukkal ndax lanu daj ba lislaam yegg si pelin eh, julli amin leen amee amee njukkal ndax yonente bi alayhi salatu salaam ci badar la amee tur wii ñuy wax mansuuru mansuur mooy kun dimbali loolu moo ko ci wala qad nasarakumullahu bi badrin dimbal gi ko yàlla dimbali ba mu badar ci la am turu Mansuru muy kun dimbali ñun nag ñu ngi bëgg badar ak seigne touba ahlu badrin ak seigne touba wa ahlu badrin ak seigne touba dañu gis ni sëriñ bi don na ñaan boromam boole ko ci ahlu badrin loolu aw ñaan la won waye biñu gisee muy talal loxo ñaan bokku ci ahlu badrin dañu dem ba jamono nak muni ni ko am allahu min ahli badrin léegi yàlla limaale ma ci waa ahlu badrin te ñaan na ba tàyyi ngir bokk ca ñu dem ba ca biir mu ni maa ngi dox di dem waaye ñi ma àndal mooy ahlu badrin ñu demaat ba ci biir diggat fu mu waxaat ni yàlla teral na ma waaye lim teralee mooy waa ahlu badrin akramani llaahu bi ahli badrin saa teral na ma waaye taraanga gi ma jox mooy tàggatal ma waa ahlu ba badrin fu ma nekk ñoo may saytu sama kaaraange kon fi mu doon ñaan ngir bokk ca lim nañ ko ca mu bokk ca list ba ñu dem ba ca biir muy dem ñu gunge ko ñuy dem ba ca biir far ñu yor séki sécurité am ci biir loolu nag bin ko laajee ni ko ahlu badrin bi ngay wax ban ahlu badrin la ahlu badrin bi saxaabati rasul aw ahlu badrin bil malaikati al muqarrabin na ahlu badrin ñaar la ahlu badrin ci ñu nekkoon ci kaw suuf ak ahlu badrin ju jóge asamaan ñëw participer ci xeexu badar bin ko ko laajee dani ñaari ñaari kuréel yépp la bu saxaaba yi ak délégation asamaan si délégation bi bàyyi madinatul munawara ak ba bàyyi koo asamaan délégation bi bàyyi madina mooy muhammadun rasulullah waaye délégation bi bàyyi koo asamaan mooy ilaha illa allah te boo ilaha illa allah muhammadun rasulullah kon laa ilaha illa allah moo jóge asamaan muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo jóge madinatul munawwara ñu dem ba ci biir mu ni bi ma yàlla teralee ahlu badrin yàlla wommatalaal na ma ahlu badrin lii qaada ahla badrin il usuuda man sax saxal waasiya wal xasuuda ki gàcceel rambaaj yi doon rambaaje sama doxin muy waasiya ki gàcceel rambaaj yi doon rambaaji saaw doxin ba bëggoon a fay yoonu murit gàcceel yi soxna yi ma iñaane woon saab cër ki gàcceel ñaar ñooñu te li ma dal lépp ñaar ñooñoo ma ko yóbbee ñi ma doon rambaaje ak doom yi soxna yi bëggul li may samp taxaw ki leen gàcceel nag moo ma wommatal ahlu badrin ci loolu nag ci lay wax ci muni da ngay gis mu ni na sama mbir yépp ak lima ma dese ci dundu lepp and ahlu badrin fa wattu amri li mubqi umri wa ma ahli badri mangko anda ko andak wa ahlu badri te li nak bu ko ken sik te bu ko ken werante bilam tiraa yi da ngay gis mu jël nak bis bi special guddik tay gi bisu badar spécial mu jël ko ubbil ko buntu ci jazbul qulub ni wax ni jazbu ay buntu la amna fo xamanteni yonent bi moko mom moom spécial bokkute ko kenn am fo xamanteni salatu ala nabi mo fa ne bokku ko kenn am fo xamanteni alquran moko mom bokku ko kenn am fo xamanteni sahaba yi ñoko mom bokku ñuko kenn am fo xamanteni nak ahlu badrin kessa nak ño ñoko mom ci nim bindee jës bu jës bul xulub am foo xam ne gàmm moo ki ngëneelam rek moo ko moom te gàmm bokkute ko kenn da gis muy wax ci badar mu ni bisu badar mooy bis bu xeex bu metti bi amoon yow man bi histadan nidaal yow man bi histadal xital an nidaal wal xital mooy bis boo xam ne dëgg mu ngi xeex ak neen waaye bis boo xamante ni soldaar yi dëgg ñoo ngi defendre dëgg soldaar yi neen di defendre neen ni daal ak xitaal nag mën na wuute ni daal mooy xeex boo xamante ni bataille psychologie la xel yi ñooy ñooy xeex xel yi ñoo doon xeex moom mooy ni daal yow ma bi histadan ni daal booba jëmmi principe bu lislaam moo taxaw pour sampu am ku taxaw ni ko doo fi doo fi sampe foofu nag li fi des mooy ay stratégie yu ñuy teg foofu mooy ni daal waaye yow mas bii tadal xitaal nag mooy bi ñu demee ba kenn ku ne xam ne nag jàmmaarloo moo ci moo ci des foofu moom jëmm jëmm mooy tax moo dal di taxaw waaye nee na bis boobu tamit bis bii di badar ñu koy màggal tey mooy bis bin yàlla xàmmee góor yàlla yi nag bis bi yàlla xàmmee góor yàlla yi ndax yàlla nee na doo leen wax rek ñëw ni sami'na wa xaalu amanna gëm nañ rek ma baleen li ngeen gëm dinaa ci segg ñi ko gën a gëm ndax mbooloo lun bari bari day am ñuy gunge am ñuy yegg waaye ci biir mbooloo mi nag dinaa ci xam ñi gunge tax a jug ak ñi ak yegg taxa tax jug motax waxtu wu ne bu ne salamu alaykum dajalo rek dana am lum def ci bir mbolo mi ñi seen pas-pas yo jox dañuy télé yewi yewé ko ci mbolo mi tekki seen i ñi seen pas-pas dëgër nak bobu lañuy gëna takwat ndax wali mahisa ma fi qulu qulubikum waxtu na damay seg li ci xol yi ndax li ci lammi nek li ci xol yi ño ñoo waxtu na da koy doxale day doxale wali mahisa maa fi qulubikum damay segg li ci xol yi ndax li làmmi ni waxoon moo xol bi dëppoonoon ko moo tax yawma taarufi rijal mooy bis bi muy xamee góor yàlla yi piir nag mooy yawma taarufir rijal ndax nit mën naa nekk rajul te du àgg ci darajay rijal nit mën naa nekk góor te du góore nit mën naa nekk góor te du góore na alquran bu dee wax baatu rijal ñeenti yoon la ci ñëw bu bi siqatu nakira nga xamante ni da ko amalul alif ak laam te chaque jour ak tàgg lay lay doon rijaalun yuhibbuuna an yatata taharu kon foofa ak tagg la jàmbaar yi nga xamante ni laab ak sel rek moo leen moo leen ñor tey génne ci njàngaleem yonent bi waaye rijaalun laa tulhiihim tijaara wala bayun an an dikrillah ak tagg la waaye rijalun sadaqu maa haahadu llah aley fa minhum man qada nahba wa waaye wa minhum man yantasir ñetti rijaal yooyu yëpp ay tàgg lan da doon war a ne kon am na ñu fi nekk nekk ay rajul waaye ñu ci darajay rijaal nag ndax góor mën naa am góor yàlla am kay góor góor yàlla nag bokkut ndax am na góor goo xam ne góoru gaaraam place la waaye du góor yàlla góore na waaye li ko garan place bi jaral yàlla ki waayam jaralun ko ko am na koo xam ne la waaye alal la li alal jaral ak dajale alal li yàlla ki gaayam jara jaralu ko ko kon rijal dafa am rajul am moo tax mu ne yow ma rijal mooy bis bi ñuy xàmmee nag dëggi dëggi ñi moo tax bin demee ba xàmmee nag dëgg-dëggi góor yi ci la daal di leeral nag ni ñi demoon badar moom mënuñoo yem ak ña demul badar ndax léegi segg na ba xam ni kon dimension yi tolloo tolloowut daan bis boobee di badar nag yow ma rida mooy bis bi bisu ngërëm bisu ngërëm ci jullit ñi waaye wal wajam mooy bisu wedam bis bo xamne wedam lamine seigne to waxati ndax nin duma yéefar yi kenn sañ ta kon yowma rida lil muslimin yowmal wajam lil kufar lil kafirin yéefar yi seen bisu wedam la ndax lan don bàkkoo bi ni ñew moy dañuy dem duma ji len cior gilem yi ci penc man len duma togge agnu neex lek ko ci seen kanam ak seenu koor gi ñuy jaay wone ginaaw delu keroog na demeewut noonu far yàlla dogal lan doon waaj pour xéwloo ko dañ ko faa daw fa ba bàyyi ko fa danoo daw ba fa bàyyi ko fa kon du bisub bin yaakaaroon noonu lay demee ci ñoom kon yow ma rida wal wajam bisub ngërëm la ci jullit ñi ndax bisu ngërëm munta weesu mbaa yàlla mbaa yàlla baat bi danoo yaakaar ni ci yoonu murit la euh, ñoo koy wax rek de baat bi ca saxaaba yi la amee woon mooy ñu yàlla toppatul dara al utaqaau min an naar mooy ñoo xamante ni seeni bàkkaar léegi yiw la amatuñ xalim ak bàkkaar loolu bi ñu jógee badar la yàlla wax jibril ni ko waxal ma yonante bi ku demoon badar xalim ak bàkkaaram damm na kama kamanoon loolu badar ndax da koo tële hmm? kam defal loolu wa badar lola mo ngi fi balegi mo ngi koy man tamit ba balegi léegi ka ko ci badar ka ko sañoon badar ndax da sañ fofu rek sañatu ko da koy continuer diko sañ hmm? da koy continuer diko sañ kon lol tamit question la bu wara lajat ndax ndax sañ-sañ boobam da yam badar rek ba ken munuko amat ganna bi badar weso wala man-man ba da yamon badar ba bi génnee badar mu defal leen ko da koo tële nan xoolaat loolu waaye day wax ni wada day waxaat ci jës bu wa yow mu yowmu falaax li si ictidaain wa rabaax li si irtiqaain wa salaax li kulli shaxsin muslimi kon wa yow mu bisu badar bis boobee di badar falaaxun mooy bisu mbégte kon tey nii ñu dajewoon di bégee di bége lan la ñuy bége victoire Badar victoire bi asamaan bég moo ñu tax daje tey di bégaat kon ñun li ñuy béggee mooy wa dalika al yawmu falaax bisu mbégte la waaye li zihtidaa in wa rabaax ci mboolem ñi amoon ak gindeeku gëmoon lislaam bis bi bisu mbégte la ci ñoom bisu bénéfice la ci ñoom waaye li kulli li sirtiqaa in wa salaax ñépp ñi nga xamante ni dano nekkoon yitti ju kawe amoon yitti jëm ci seen borom bisu badar mbégte la doon ci ñoom gis nga li ma doon wax a sànq ngoog yawmun bihi qad xafara dunuba man qad hadara gis nga wax ji yawmun badar mooy bis bo xamante ni yawmun bis da bo xamante bihi ci barke bis ba foofu tamit lu jara a la barke bis ba qad ghafara ci lan jéggale zunuba man qad xadara mboolem bàkkaaru ku fa teewoon bàkkaaru ku teewoon barke bis ba tax na sa bàkkaar effacé wu waaw ndax bisu yàlla yi ci badar rek la yam ndax bisu yàlla yi yi ni effacé bàkkaar ba nga set ndax ci badar rek la yam te yàlla ni woon wa zakkirhum bi ayaamillah dee leen fàttaliku bisu yàlla yi inna fi dalika la ayatin li kulli sabarin shakur dee leen fàttaliku bis yi waaye waxul dee leen fàttaliku bis bi ah jar na jàngat jàngkat yi ñu ja ñu saytuwaat ñu xeluwaat naasluwaat xel yi ba xam dane woon da ngeen fàttaliku bis bi wala da fàttaliku bis yi te bis bii lim ci def mooy yow yawmun bihi qad xafara ci barke bis bii ci la jéggale dunuba man qad xadara bàkkaaru ku tey woon badar keroog set nga wicc ci bàkkaar ba mel ni liir bi doog a gane àdduna loolu kan moo ko def ki moom jaami war leen a topp moo teggil jaami lim leen di lim leen di topp xitaaluhu rabbul wara ñi doon xeex te yàlla rek a taxoon ñuy ñuy xeex léegi xoolal nag li yàlla jéggale ci bàkkaar sëriñ bi daa daal di leeral ci bayit wi nii bul ma wax bàkkaar yu ndaw la leen yàlla baal de déedéet dama naan la ñaari bàkkaar yëpp la leen baal kabiratan ka lamami kabiratan bàkkaar yu mag yi yëpp baal na leen ko ka lamami kon ni leen baalee bàkkaar yu ndaw bàkkaar yu ndaw yi ñaari bàkkaar yépp kon baal na leen ko baal na leen yu ndaw yi baal na leen yu mag yi takku yu ndaw yeeg yu mag yi nag teggeeku ana lu la toppati dara kon Euh, xam naa duñ yàgg sax ci micro bi noonu waaye xam naa danañ topp rek ànd ak Badar ak gis bu euh, Badar ak sëriñ bi waaye mu ñëw nag di ñu wax mu ñëw di ñu wax laaqa dawul xayri siaab fiihi zawid dayri siaa sëriñ bi nag ku mën a bind la bind moom bindantiwu ci ndax boo xoolee di ñu wax allaf wa nasr ci ilmul bayan علماء البلاغ لين اللف والنصر كون نيم كو ديفي ارباب خيري ارباب ديري لباقي ميري او اعتدائي قال البيد نيمي تك فيريكو موي ارباب خيري ارباب ديري لباقي ميري او اعتدائي ارباب خيري نيكو موم لباقي ميري ارباب خيري لباقي ميري نيوكو arbaabi dayri aw ictidaai ñoo ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wi kese la feese waaye nag ku yiw tax a ñëw ku yiiw tax a ñëw te yiiw rek indi la ci kër gi mu yàkkal la ndabal yiiw ba wis la nag waaye yonent bi alayhi salaatu salaam nag beneen côté bi lor kese la feese ku lor tax a ak bëgg a jalgati yoon wi mu wan lañ nag loo fi jaay ci loraange am nga fi kon kër gi ndekete lépp fi ne kenn ku ne lu la tax a jug nag boo ñëwee ñu sédd sédd la ca moo tax da koy wax fa la ci raiya kilta yadayhi laha saayun tulazimuhu bazlun wa basun liman laanu wa man jaaru li ñu daloon ci béyt bi moo ñu dalaat fii rek ci ilmul balaaga alaf wa nasr kilta yadayhi ñaari loxoom yépp laha saayun am na fonction bu muy fonctionné ñaari loxo yëpp ay fonctionné ndijoor gi moom lim man mooy baslun ku ñëw di laaj mu jox la waaye càmmoñ bi nag lim man mooy bësun ku jug di xeex mu duma la waaye gis nga bim mu ne baslun ci ñan man laa laanu ñi nooy te yaru jox rek la séq ak ñoom waman jaaru ñi yaree di ko tey xotti xotti war ma duma rek loolu tamit du jug ci àdduna am na ñoo xam ne war ma rek nga séq ak ñoom ndax war ma la la may am na ñoo xam ay duma rek nga séq ak séq ak ñoom ndax danoo xotti wor ma waaye kon ba léegi gis nga tamit eh, li may wax fii laaxaa sawul xayri siab fii sawul dayri siab googu may wax rek li ma doon wax ci bind bi moom moo ma dugal sax ci yële eh, ba ca mawaahi ba ba dugalaat ma ba ca biir eh, raiya ah waaw moom kay xam naa ni Eh, sëriñ bi moom noonu la ay mbiram eh, naan gu yokk mar la léegi nga gis wahum maan usdun xitaab eh, maa ngi doon wax ni xam naa war nañ waras nanoo gëstu benn benn mbir naa jëm cee taxaw xam naa ñoon sëñ Aliou ñoom danañ ci danañ ci taxaw mooy mansilatu saxaaba inda kitaabatil abdil xadim wàccuwaay gi saxaaba yi am ci xasiday sëriñ bi loolu nag man maa ngi ko inspiration boobu moom ma dabee ci jaalibatul maraaxib damay gis jaaliba saa yu day tudd saxaaba yi dana ci jo wane benn melokaan boo xamante ni ci ñoom ahlil irtiqa ahlil istifa nga xamante ni chaque jours dana ci joxe benn dimension boo xamante ni eh, lu jar di xoolaat la ci diggante bi saa yu waxee ci ñoom rek bu joxee dimension bi boo wëlbatee xët wi day joxe waat beneen dimension boo demee fi mu joxe beneen dimension ba ni jaali bay jeexee maanaam jaali ba jaali ba matoon na référence ci wàccuwaayu saxaaba yi ci mbindum sëriñ bi waxantu naa nag nga dem ci yeneen téere yi ci de yi ci des asma ahli badrini kiram wahum maan usdun xidab ñoom ñépp ay gaynde lan usdun ñoom ñépp ay gaynde lan waaye nag ridab gaynde yoo xamante ni bu mer jotee dañuy mer lu ko jar tamit bu jotee dañuy jug kon ni mu ko waxoon ci muqaddamat usudun ala al aadai masabixu fi duja wa kullun sijaun rah lazil kufri yajzawu kon wahum maan usdun ridab waaye foofu nag des ni ci jàngat kon ndekete nit du dëkk ci mer dañ koy merloo rek mu mer boo laalee lu foor ci moom mu mer saa yow bëggee xotti war ma lu foor ci moom mu mer bu meree ci sa kaw nag koy gaynde lay ah lay amee gaynde saa yu meree day défendre ay cause am ay principe am lay day défendre ci àll bi ngir bañ kenn ko ko yab nit tamit saa yu meree ba yor jikkoy gaynde day défendre ay principe am ngir bañ kenn ko laal ay ay principe am waaye yemul ci ay gaynde lan da cee teg nii sawurtifaaci himami boromi yitte lanu himma aaliya te kon kenn ku ne sa yitte moo lay yóbbu fi nga toll kullun lahu himmatun yarqaa biha abadan sawurtifaahi himami ñaareel ba yitte yitte yitte ñi ko bokk ñooy ànd Sëriñ Tuba ba tàyyi wax na mag ñi ni ak bokk taxut mën a ànd ak bokk taxut mën a ànd ak mën a ànd day tax a mën a ànd nit dana bokk ak nawleem ween wu nu nàmp te duñ ànd daat koy jàngale woon ci cere ni cere bu fekk ji woon ay mbokkam yam mbokk ndey ak baay kenn du ko jëfandikoo ndax xetax la bokkal la bokkal ndey ak baay ak cox te boo ko boole woon ak mbokk dong ngay dabu ba boole kook xetax ak cox nit du ko jëfa jëfandikoo daa xooli ñam mën a àndal te bokkook ñoom ak ànd te seeni ànd di rafet mu dem lonkook ñoom moo tax nit di ko berndelee ganam kon mën a ànd taxut a ànd bokk taxut a ànd mën a ànday taxa taxa ànd moo tax wa rufqatun wa hiya ixwaanun lahum himamun maa al wafaai bi sidqin fi l uquwaati nit ñi ñi bokk ay yitte bokk fun gëm bokkuluñ gëm ñoom rekk ay mën a ànd ndax kullu la bi ma fari farihun mbooloo mu ne lay bigal seeni xol di tooyal seeni xol ca leen mën a yàgge buñ bokkee ñu ñëpp liy bigal sunu xol mën nañ fay fanaan ba suba jot du jëmm yi ñooy daje ruu yi ñoo ñoo daje buñ dee ñaan sax dañuy fipp rek ñaan waaye kenn du doyal ci sa ci sa moroom boobu jataay nag ruu yàlla waaye du jëm du jëmm ya waaye da ngay dégg ci biir badar muy nettali nag xissa bi ak badar tension bi amoon ci biir wa qaatalu man qad naa hum humu safiu sufaa xatta algubaaru sataxa bayna jabaanin wa kami nee na dafa dem ba ci biir biir terrain guerre bi danoo dem ba ci biir terrain bi ñu doon guerre muy terrain badar xatta algubaaru sataxa pënd gi moo muur ñépp ñuy xeex bëccëg ba mel ni guddi lanu lanu ne xattal xubaaru sataxa pënd bee muur ñépp bay na jabaanin wa kami diggante tàppetu yéefar yi ak jàmbaari saxa saxaaba yi xoolal ni mu leen tudde ñoom bay na jabaan diggante tàppitu yéefar yi waaye wa kami ak jàmbaari saxa saxaaba yi déggal fële fa mu ñëwaate ni'mal kumaatu wa kami ni'mal kumaatu kami dafa nek singulier fee mu nek pluriel fële da koo def kumatu jamu la ay ay jambar fi mu ni wa kami bayna jabbanin wa kami mom lay waxat fële ci mawaahibu ni'mal humatu ni'mal kumatu ni'mal kumatu ni'mal umatu idan amatu bil ikhtifai kon nak ci ñom rek bihi ma day wanewaat photo badar ci biir jës bu ni la badar biñ demee ba pënd ba nag muur ñépp ba kenn gisatul kenn summa naxaa min assama xaylun wa jundun asuma ila raisi lkurama bisran bi gayri wakami ci lañ jékki-jékki asamaan ni tay ñuy gis nag xaylun wa jundun ay fas yuy wàcc wa jundun ànd aki soldaar yu war ca kaw fas ya jóge asamaan di ñëw xaylun wa jundun asuma kon xaylun wa jundun asuma fan lañ jëm yonent bi alayhi salaatu raisil kurama ki nga xamante ni saxaaba yi ñu tedd lan ay jàmbaar lan waaye ci seen njaati gi nag seen kilifa moom la yàlla bégale tey malaaka yi jóge asaman di ñew di bokk ak ñom guerre guerre bi di partager ak ñom kon ta borom bi wax nañu ko euh an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin min al malaik munzalin waye ba legi tamit señ bi di ñu badar ni kérok bi rafos ñew renforcement bi nga rafos dañ ko renforcer mu juggé asaman amaddahu rabbul anaam bi jundin am laakin izam amaddahu renforcé na waa badar ki ko renforcé mooy kan rabbul anaam boroom mbindéefi ci lan la leen renforcé bi jundi am lakin soldaar yoo xam ne ay malaayika lan idam ñu màgg te ñooñu nag li adadin laa li am seenub lim bari na bari goo xam ne mu ne su koo takk ardaw sawit taallub nga xamante ne ardaw danoo ñëw pour alak rek danoo ñëw pour alak rek ñi ni alak mooy yéefar yi nga xamante ni ñoo ñëwoon badar ngir dal ci ci kaw yonante bi alayhi salaatu wasalaam ngir bëgg a fay lislaam mu jóge fi ba faw waaye amuñu ca ndam nag amuñu ca ndam la tax amuñu ca ndam mooy bi saxaaba yi bi malaaka yi ñëw est-ce seen kilifa ñëw na muy Seydina Jibril sëriñ bi ni Jibril moo jiite woon délégation bi ñu ni ah mu ne waaw wa fiihimu xaliluhul mumajjidu Jibril ma sanadu Jibrilu ni'mas sanadu nee na ki jiite woon délégation bi ñëwoon Badar mooy Seydina Jibril alayhi salaam moo ñëwoon jiite délégation bi nga xamante ni mooy malaayka yi ñëwoon doon jàppale si yonent bi alayhi salatu wasalaam ci bataay boobee amoon badar kon ba léegi sëriñ bi kon moo ngi jàngal situation badar ci jazbul qulub ba léegi yemu ca waaye dañ doon wax ni bis boobee di badar ni ñu def rek lan ci war a def fal naxmadillaha ala najaatina mimman qala وكل شر مسجل بالمصطفى المقدمي سنت يالا رك مو ني وار بو بدر نيوتي لوني ديف تاي فلنحمد الله على نجاتنا ممن قال وكل شر مسجل بالمصطفى المقدم قال القول الوحجي قال كون بيس بي بيد ويم سيمبوليزي موي فلنحمد الله على نجاتنا ممن قال وكل شر مسجل بالمصطفى المقدم yalla ñu gëna dimbali ci bopam ñu ngi am dimbal ci mom sax waaye yalla ñu gëna dimbali rek ci bay do wu fi tolni manes nako rom lu yag te do bayyi xel ni badar ndekete dañ ci wara sant yalla fal nahmadillaha ala dani nanu nanu kon waxul nanga nanu nanu nak des koy wote nanu des koy woote mooy lii am rek fal nahmadillaha ala nanu sant yàlla ñu ñun ci lan mu ne ala najaatina mucc gin mucc mim man xalaa ñi banoon lislaam ñi bañoon lislaam bëggutoon mu takk mucc gin mucc ci ñoom wa kullu sarrin ak bépp ndëgg sërëx ak ay wu ñu tegaloon loolu nañ ci sant yàlla bu yegsee kon lan moo xew war a daje sant ci yàlla daal nag bis bobé di bisu badar bi dalika al yawma hasal lana amanum min wajal wa min ana'in wa qajal wa min jawan wa nadami Nen bis bi di badar ci lan amé sécurité ba faw saña légui tabakh juma di xutba Juma, ta attaque du am badara ñuko may ndax jumaa ñëw koo tabax te amoo séki sécurité waaye après badar lan lanaa amaanun min wajal amaan sécurité bi nu am léegi kenn ko di guddalante ay sorool fan lañ ko jëlee kon léegi ak dalu xel gi mën a julli ba sëlmal te wóor na la sa bakkan ci du ci des loolu ñu ngi ko jëlee kon ci bisu badar moo tax waa badar tamit ñu amal leen njukkal waaye wamin ana in coono tamit jeex na waaye bi coono di jeex badar la coono jeex waaye bis boobee lañu yàlla may sécurité wamin xajal amatul gàcc na keroog abu jahlin li mu bëggoon bu ko amoon lislaam am gàcce ba faw waaye badar ci la ñu amee sécurité amaanun min wajan njàqare jawan bépp njàqare boo xamante ni rek njàqare yi stress xol la mucc nañ ci keroog badar waaye wa nadami réccu tamit keroog badar la mujjee réccute ba faw waaye bihi xaniinaa lil jinan ci badar lan mànge nag àjjana bihi xaniinaa lil jinan ci barke badar lan mànge àjja àjjana an ghazwatin wa an hawan bihi lana taaba zaman nee na bu jamono neexetee sax sant leen ko waa Badar ndax ci barkeb Badar la jamono teeye ci barkeb Badar la jamono neexe bihi lana taaba zaman maha qabulil qidami nee ci barkeb Badar la jamono neexe ci barkeb Badar la nangoo saab liggéey kon ñun ko waaw ñun de bëgg na noo xam saxaaba yi seen xeex ban doon xeex badar lan mooy seen motivation lan moo leen yëngal lan moo leen ñulu ba tax saxaaba yi doon xeex badar nan doon xeexe mu ni lenn rek a leen yóbbi xeex bi ak njàmbaare gi bëgg seenub sëriñ ba yemale woon kook dara ba kenn ci ñoom ku ne yaa ngi bëgg a faatu sa morom noppalu dellu kër ga tanaazahu lmawta maa walkullu minhum sajua yabqi liqa aw yusraxa li xubbi maahil xumami loolu rek mooy solo si li xubbi maahil xumami tanaazahu dañuy xëccoo almawta faatu da ngay gis ku jekku diw ñu boole woon ko diw am ku ni ku ñëw ñaan ko xeer bi ku ñëw ñaan ko xeex bi tanaazahul mawta maa ñoom ñëpp dañuy xëccoo dem te nag koo ci jël rek wal kullu minhum sajoa koo ci jël rek jàmbar la lan la ñuy sàkku yabqi liqa koo ci gis rek mu ngi sàkku attaque day avancer rek day foncer di dem rek aw yusraa bakira ñu koy ndërmeel jam ko mu daanu baa mu jamee gaay yi daañu ñu ni waaw lii nag lu leen ko yóbbee sëriñ bi lu leen yóbbee yabqi liqaa aw yusraa mu ñu li xubbi maahil xumami bëgg seenub sëriñ rek moo tax mu ni nicma rijalu maa ngi doon wax sànq yow ma taxaarufu rijal gis nga fii tamit ba léegi nicma rijalu ca yooyee góor xoolaatal foofu ca mawaahibu nicma rijaalu waqtal anaa'i kon nag rida samii ala aljamii yowmal qusuuhi yowma nidaayi ñooñu rek rida samia ñooñu la yàlla mii samia di dégg lu xew ak lu mu ruqi ruqi mu dégg ko ñooñu la yàlla gërëm alal jamii nag ñoom ñépp la boole gërëm te nag gërëm na leen ba ñépp xam ko waaye bu ëllëgee yowmal qiyaam mu joobe leen ba ñépp yëg ne waa Badara nga ne يوم القصور يوم القصور لا يخار نك جوبي في موم وخنا لي في نموي سين قليم بكار دمنا يوم به قد قد غفر ذنوب من قد حضر قتاله رب الورى كبيرة ك كلمامي كبيرة بكاري مجي بالن لينك كلمامي كون نين بالي بكاريو يو يونداوي كون توبول بكاريو مك توب نيلو يونداو لون توب يوم به قد غفر ذنوب من قد حضر ختاله رب الورى كبيرة كالأمم maa ngi bañ a guddal waaye ñun daal ñu ngi amaat tawfiquk dundu dundu bayitu fal naxmadillaha ala najaatina mimman qala wa kullu sarrin musjala tawfiq gogu dal am nañ ko tey ci guddigi moy mooy tawfiq bayit woowu nan bok sante yalla ci victoire bi badar am serigne bi nak nonu rek la andak wa ahlu badrin waxuma nak serigne bi rek ci ak ahlu badrin njabotuk serigne bi sax da am ku ci waxon rakam serigne fadilu da waxon cheikh abdullahi lahat ning ma jappale ci sama khilafa gi ci sa liggéeyu wajur wi de boo demee ba may wuutu ji dinaa la booleek waa ahlu badrin suñ fal nag dafa am kilifa gu mag ci réew mi ku ñëwoon ci moom ni ko dama dégg ñu ni dangay gis malaaka mun ko boo wóoloo say bët ma wan la ko wóolu say bët mooy wu mu wóor la la ba nga juddoo ba léegi mosoo xool lu yàllay tere ma wan la ko boo wóoluwul say bët nag bu ma la ko wanee day tuuru dootoo gisati mu ne ko wóoluwuma samay bët mu ne ko kon boo wóoloo say nopp ma may nga déglu mu ko wóoluwuma samay nopp waaye bëgg naa déglu mu wax ko lim soxla ci malaaka boobu muy Mikail moom ab newet la soxla woon mu wax soxlaam ci newet Mikail tontu ko mu jug sëñ nak nak waxon si ablad niko ni ko saa yu mu wuutoo ci khilaf ak sëñ tubaa gi dina la bolek wa ahlu badrinil kiram lol sëñ Modu Bus Jeng moo ko nettalil boppam sëñ Modu nee bi sëñ fallu wacce liggéey mu dem ke sëñ ab waxu wax ko ni ko sa mag ju bax de ji na nee mu jiit ci ablad si ñu génn ko ci ablad gi ci pinc mi jëm kër seigne fallu nee bi ni rek la ci ablad ni ko ndax modou bu saw gis li limay gis mun ko lolu mbacke lumu mun ko sa baye da lam ma waxon tay la ko tàmbali moy ahlu badrin nga waxon damay booleeg ñom ma ngi leen gis ñu sappé jóge sa biir kër sa biir sa biir kër baye ba fin ko wara denc tay mu ne ko seigne modou bu ni ko man de lolu gisuma ko mbacke mën ko man de mang ci tek beut te ñooñu waaye moy wa ahlu badrinil kiram kon ahlu badrin ak serigne touba seenu and mom yemul rek ci serigne bi way da ko rafatal rafatal njabot gi da ko rafatal njabot gi and gi tammi yag na ndax sécurité tukki bépp ahlu badrin ñoko ñoko yaron ndax bi tubaab bi jaaxle dëgg-dëgg ba naan ko bul ko wax kenn danoo xëy si bëggoon koo liquider bin xëyee génn yam ci ahlu badrin sàppe tubaab bi xam ne ñii ñuy seen du du ay nitu ke kese ñu sëriñ bi ne ko yow daa am ñoo àndal yow armée bi nga àndal dana tax kenn mënut a xeex ak yow waaye fexeel na bu kenn yëg ni sa gaa yi gis nañ leen sëriñ bi ne leen kaw leen ko wax rek kaw leen ko wax rek moo ko yëg waaye bu man moom kenn du ko yëg waaye ñoom ñoo ko bind ci seen rapport far mu daal di siiw sëriñ bi tamit bindal ko ci saa sakku laatuf fii jawaabi abdil abdil latif wane ni kon moom waa ahlu badrin la àndal waxtu wu ne ñu koy aar li gën a yéeme nag mooy ànd ak soldaar yu toll nii te mosoo leen a jox ndigal mosoo leen a jox ordre lu taxaw situation bu taxaw yow rek yaay yaay face à face ak loola yow yaay affronté chaque jour yaay affronté te am lu toll nii bi ngay départ jeewal boo joxe woon foofa ordre dem gi doo bi ñuy départ jom jee bari jom ji xoolal ni mu noppalee ñin ko booleel ba dar la dem eh, jeewal la ànd ak ñoom ba ñuy yeggee maa yomba te lu mën a taxaw rek moom rek mooy moom mooy risque moom rek mooy taxaw noppal ñee waaye li mu waxoon rek li ma doon daj lépp mënoon naa bañ a am waaye kon li ma leen bëgg a defal du am kon mbir mi ñun ñun ñoo ci des ñun ñoo ci des kenn ku ne nag war a nag laaj boppam lan laa de lan boole gëm ko saxaaba daal mooy ku gis yeneen bi te gëm ko donte benn bi sax nga ko gis te gëm ko benn bis bi nga ko gëmee te fekk booba gëm nga ko rek kooku la ñuy tuddee saxaaba baa mu gëm ko te dajeeg moom jamono ndax mën na koo gëm jaare ko ci keneen waaye tegu ko bët waaye dafa jamonante ak ak moom kooku la ñuy tuddee ab ab saxaaba waaye ña dajeeg moom nag gis ko ci bët waaye gëmuñu ko ñooñu du ñuy saxaaba ñooñu moom kenn du leen tuddee saxaaba saxaaba da nga koy teg bët yonent bi baa nga bokk moom jamono. ba pare gëm ko loolu moo di saxaaba badar badar ab teen la badar ab teen la ab teen suuf la ci suuf si la ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa am fu mu njëkkoon a campé pour préparer xeex bi am saxaabi saxaaba bu mag ñëw ni ko ndax fii nga campé yàllaa la ko sant wala stratégie guerre la ci diisoo gim daan diisoo aku njabootam ak bàyyi xel gim daan bàyyi xel am na lu mu am waaye am na lu donga yi am ba tax da leen daan diglu ci xalaat mu ne ko ah, stratégie guerre rek laa ci jublu waaye du wax yu bun ma wax ni naa fi wàcc ca la daal ko wax ni ko nag fii baaxut kuy xeex dangay jige ndox ndax bun dimul ba ca teenu badar bee ñu wéeru ca wetam buñu dog dabé ci yoon yi bu waré wëgg fasi ak gileem yi a naan dañuy dox sun digënté ndox mi té bu leen fa jitu ñom danañ ñu fa jitu ci lan daal di juggé fa njëkkoon na campé ñëwaat nak ba ci ténu ba badar bi badar ab la badar bokkut ak badru badru ak badar badar ab teen la badru nak wër la sallim ala badrin jala dujal qulubi wa ula mom nga déggaat ca Badrul ah, bu muy wax ah, badrul buduri badidiya yi eh. badr mom nga dégg aliyun bada badara aliyun badara du badar aliyun badara moy ali mi nga xamanteni dara daraja ji daa toll ni weer wi am fukki fan ak ñe ñent lolu badr eh, badar nak mililah la ab teen la moo ci souf si lan souf sa mo nak badar ten ba tuddu badar ten woowa ci wetam lan doon xé xé moo tax ñu tuddee xas badrin muy turu ten ba yonent bi nak alayhi salatu wassalam badar mom def na fa kiman yu bari nak seydina ukasa radiyallahu anhu day xex yor jasi xex ci badar ba jasi ci damm mu joy joy yi metti ndax dammuk jasi ji te yéenam ye yegut mu ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko am naa naqar gu mat sëkk mooy jaasi ji ma doon xeexe daa damm yent bi xëcc benn cëggu tàndarma ni ko xus jàpp jëlal mu jël cëgg tàndar bi mu soppali ko jaasi sidna xokaasa cëgg tàndarma googu yent bi joxoon ko mu soppali ko jaasi ci la xeexe badar ci la xeexe uxut ci la xeexe xandaq ci la xeexe azab ba ci xilaaf sidna omar ibnul xataab ci lay doog a wàcc mook jaasi jooju waye ci bis bi di badar ci la yantibi sallallahu alayhi wasallam sayyidna sayyidna qatata radiyallahu anhu ci lan ko jam ab xej ci bët bi ci ñi mek sahaba yi mu japp xeeju ni ñii ñëw ba ci yantibi mu ko buqit peru bët bi top ci mu ko dama bayyi njabot ginaaw te bëgguma delu wat di yóbbaale bët bu pat ta man nga ci dara yantibi jël peru bi raay raayal ko ci loxo bi delloowaat ko ci bët bi bët bi yonent bi laaloon moo gën a leer bi mu laalut ba ni mu génnee àdduna bis bii di badar ci la yonent bi alayhi salaam suba lan war a xëy xeex yonent bi taxaw ci géew bi nu war a xeexe ni fii la diw di tëdd fii la diw di tëdd Fila la sayba di teud fi la rabia di teud fi la walid di teud fi la abu jahl di teud fenn fu ne mu rëdd ko nak wax muas ibnu jabal ne ko xamé ko ñu xex jant ñu xeex laataa jant so mu ñew ci pinci mi di xol ga yep teud fu mu rek fa la koko teud sun borom ci bopam yonent bi yaa neex la dal wa yonent bi deful dara yalla lutax mu defal ko lim ko defal lepp du dara lum def du dara ya ma neexu sa borom la rek mu def ko nim ko nim ko def amul leneen lum ko defal waye di gëna a yéeme mooy war a xeex di nelaw war a war di nelaw nelaw nag moo wax dëgg militaire buy nelaw ba bi dënti war a xëy am xeex bu toll ni badar nelaw ba bi dënti foofa xel dal na moo tax saxaaba yi danoo nelaw nelaw yu musta nelaw keroog badar yàllaa leen dugal ak ngëmmental ngir estres bi nu amee woon ak xalaat yi mu dindi ko ci seen bopp bopp yi is yuqsiikumu nuxaasu amanatan minhu ba am na sax lu leen dab ci biir mooy dem nañ ba lii dab góor ci gént dab na leen ci biir yàlla daal di taw nag ngir ñu sangu loola ñu sangu ba pare taw booba tamit leneen amaat ci mooy fi saxaaba yi campé woon daa gannuuse te xeex ci gannuus daa daa metti pour nga jug du yomb mu taw fa taw bu yamamaay suuf sa dame yéefar fan campé dafa bane mu taw fa ba muy lóor dox ci band yo du yomb ci sot gi yalla don sot badar sot gi yalla don sot badar da ci bok ci da taw fee taw bu may ganus gi damé mu taw fe ca ban be ba ban bi lour fa yéefari campé ku nek ci ban nak bala nga jug ñu fekk fekk la fa kooku dafa bokk ci stratégie bi yalla jëfëndiko ba badar ci waaye li gën a yéeme mooy abu jahlin fi ñu toll badar ay xale ko faat ay xale yu doon condamné doon denc ngir jënd jaasi jënd seenub jaasi jàppoo ko attanuñ ko sax ñëw ba Seydina Hamza ni ko ay na abu jahlin kan moo ci mbooloo mii abu jahlin Hamza ni ko yooyu loo leen di doyee abu jahlin ñu ne ñun ko bañ yonent bi la ñuy seen te dégg nañ moo gën a bañ yonent bi te dégg nañu yonent bi ni mooy firawna ummati mooy sama firawna wu xeet Musa amoon na firawna waaye Abu Jahlin mooy sama firawna wu xeet moom la yàlla répété waat muy firawna ci man ñun nag danoo amoon condamné bu doon daaj kenn kon daañ ci teg ab dërëmam par bis daaj ji nañ ko ba jënd ci jaasi jii moom la ni seet ci mbooloo mii te xam nga xale kenn du ko rey ci ci xare moog jigéen a yam ci biir xeex bi nag la nekk di di xuus di di dem di seeti abu jahli bi mu leen abu jahli la ñuy xuus ci biir xeex bi nag yor si nag jaasi jàppoo ko bi ñëwee ñaari xale yi bi ikrama doomu abu jahli di taawam ci la dóor benn xale xale bi mbagg mi wàcc beneen xale bi ni teewul yéene ji dana ye dana yegg bi ñu jamee abu jahli moom ñoom ñoo yeggale abu abu jahli ba pare war ci kawam nag te ay xale lan amuñu won 15 ans seen 15 ans yi matut waye ci pass pass la jur as ay as dedet pass pass la jur ay at pass pass ñépp ko mëna am moo tax sëñ bi tamit gis nga dañi sama liggey bi may liggéeyal saa borom mag ñi nan jël seen wàll waye nan bàyyi xal xalay dañi jël seen wàll nasran azizan yashmalul kibara maha siqaari rutlahum man baara kon liggey bi mom al kibar dañi jël assiqaar dañuy dañuy jël mag ñi danañ jël seen wàll lan war a am am ko waaye duñ xañ xale yi tamit seen seen wàll badar keroog bin reyee yéefar yi ba pare yonent bi moo wax ne nan leen watat dugal leen ci teen bi ñu watat leen dugal leen ci teen bi ba noppi yonent bi tiim teen bi ni leen ndax la ma leen waxoon dégg ngeen ko sa borom de wóolu ñett yoon daal ne borom de lam ma digoon man def nako ko nak bis ni ki tey ngeen di ak lam leen digoon moy am bugal ba ila labat man nak lam ma waxon diw ak diw dina leen duma tay duma na leen yéen nak yéen a ci bir ne leen leer ni nak seenu bugal mom tay la commencé ba ila labat ci la sahaba yi ni ko ndax ñi ñoo ngi lay deg mu ne waaw waaw mën ta tontu rek waaye lima ma leen di wax ñu ngi koy ñu ngi koy dégg loolu xam-xam ko xam-xam jàngale na bu saa yoo demee di siyaara ji ab barab ki ngay siyaara ji boo asalamu ko asalaamaaleykum dana la fay yow mi muy wax wa salam la say nopp du neex ba nga jot dimension mën a limi limi mi wax di ko siar mu ngi lay wéttalikoo ndegam na la ci kaw kaw suuf am bik ci bi ngeen daan dan daan waxtaan rawatina muy wajur ak doom mi sëñ bi nañ ko ci jawahir fi akbar israil kon euh, badara ngoog buñ demee nag ba yàlla waxuma la jëmmi saxaaba yi nekkoon ci badar waaye borom bi subhanahu fas ya ñëwoon badar sax joxe seeni participation da leen di delloo jukkal ñoom la tuddee suratul aadiyat wala aadiyaati dabaa fasi badar yi la ko tuddee fasi badar yi ñoom lay bàkke ci والعاديات دبعا فالموريات قدعا فالمقيرات صبعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بقنا فسي بفسي بك مدوغو نيونا كنيت إن الإنسان لربه لكنوت نيت موم فاس جامبار لولول واي نيت ينساي دي ساك جف أكي نين ينساي ما دف كل ما قاي دف بنوبي مساك جف لكنوت وإنه على ذلك لسعيد دافو بغ علال وإنه لحب الخير لسديد نيم بغي علال داب فك فوا تي li jitu ci bak bi ay fas la don la don bak ni fas yi don doxé ci bir badar positif gi mom lay saxalat fofu ci ci alquran kon bu fekkee ni badar laaj la won badar dal, barab la ab teena fa nekkon bu tuddu badar ñu rand si won fa ngir amal fa xex bi ngir buñ soxla ndox ñu je jekk ko sahaba nak moy ku gis yonenti gem ko léegi nak soxna si nga xamanteni euh yonenti bi doon na wax ni liko yalla bu ko séddoo woon ak waa àdduna sawar a fay soxna soxna mooy xisatul xaamidiya xisatul xaamidiya ndaw si dafa amoon borom kër séqaat góor gu ko lewut bi mu séqee góor gu ko lewut mu jële ci ab ëmb ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jumaay madina mu nawara ni ko dama bëgg nga laabal ma laabal ma mooy nga àtte ma àttey àttey yoon sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga sutural sa bop ndax bang koy def yak sa borom rek yene ko fekke won gannaaw mom moko yak mom ko fekke won ta yëgalu ko kenn demal nga sutural sa bop ndaw si insister niko man nga labal mala la soxla ndax moy dal sama samam xel atte ma dal sama xel mu insister wat yonent bi wax ko lim ko waxat mu insister wat yonent bi niko nak gannaaw da ngaa toll diggante demal ba li nga yor gane jamono mu delluwaat ba loola gane jamono ndaw si àndaat ak doom ji ñëwaat ci yonent bi ni ko li yoroon gane ne àdduna laabal ma yonent bi ni ko lii day nàmp delluwaatal nga nàmpal ko ba mu fer ñaari ndaw si delluwaat nàmpalaat ko ñaari at ya ba léegi mu ngi bëgg rek ruq su ndaw si jaar ba tuubali boro boromam ak sutural boppam yépp pour mën dem diggante ma boromam bàyyi xel ne yeneen bunta ngi fi waaye ndaw si tamit moom li dal xelam rek mooy nan ko atti ndaw si dem nampal xale bi ba waxtu fer jotam mu indaale mburu moo feral indi mburu foofu la jóge moom moo indaale mburu jox yonente bi ne ko feralal xale bi yonent bi daal di feral gone gi jël xale bi dénkaane ko ni ko nag daal yónnee ci pénc ma ñu woolu góor ñu dëgër ñu gas tànki ndaw si dugal ko ci mpax ba ni mu yegsee ci ndigg li nga li ci kaw ndigg li jëm kaw rek mooy feeñ ñu koy jóor ay xeer ci kanam ak ci ginnaaw ba bakkanam wadd ndax loolu mooy àtte bi raj mu bin ko dóoree ay xeer ba mu faatu nag sallallahu alayhi wasallam wax ni nan ko sang waajal ko biñ ko sangee waajal ko mu jullee ko biñ ko jullee ba noppi ne da daa daal di teg ni ndaw sii de jéggal gi ko boroomam jéggal toll na ni jéggal goo xamante ni ni ko yàlla teralee ca àjjana ak njéggal gi ni mu toll bu ko séddoon ak waa bu ko nangoona a waa suuf sawar a fay kenn dootul amati cërub sa sawara ndax lim nangul boroomam tey ji jéggal gi ko boroomam jéggal ci lii ndax booba sax la tax loolu mu gën cee addu mooy xaalid ibnu walid radiallahu anhu moo tifli ndaw si bin ko jemee ba jam ko bam am faatu moo ni ko sa buuxul ma la daal koy tifli bakkar bu doy nii ni ko nit di ni ko nit di defe digganteem ak boro boromam ci ñoom nin bañe woon bakkar eh, yonente bi nag ni ko yaa ngi tifli koo xamante ni moo la ëpp moo la ëpp garaat fi mu toll nii ndax lam am wóorugu la ba xam da ko am lam am wóorugu la ba xam da ko am ndax fi mu toll moo ngi ci digg deexi àjjana yi moom ak ruuxam di feey yow nag xamagun ba xam fooy fooy mujj wóoragu la gis nga kon kon day mel ni mbir mi daal doy na waar <laughs> xam naa bu nu amaatee beneen laaj bu fekkee ni waxtu yu tënkuñu eh, bu ñu dee yeew yi tamit ñu yeew yi ñu rek bu nu amee leneen lu mën a dugal ñu dugal ko <laughs>